Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Euh, mbokki julit yi nek ci bir daara ji laayante bir ci l'islam man la sen agent de santé Diabaté maa ngi leen di nuyu bu baax baax ziar di am mbégte ak contentement bu rëy ngir ñëw defal leen seen euh, beneen numéro émission santé euh, di wax ne rek askan bi ñoo fi bàyyi Euh, képp koo xamante ni yittewoo na lenn lu jëm ci mbirum santé na xam ne euh, mën na ma gis maa ngi dëkkee Kër Mbaye Fall et mën na ma contacter tamit ci euh, WhatsApp 77 312 03 32 kon ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission santé. jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu ko annoncé tey nag waxtaan bi nga xamante ni moom la ñu bëgg indil ko mbokk yi. Euh, mooy li nga xamante ni dafa jëm ci actualité ndax xam ngeen ne fi mu ne nii euh, ñu ngi wax euh, Covid 19 bi ak surtout variant delta bi nga xamante ni moo lëmbe àddina nekk lu xaw a doy moo taxoon tey ñu xalaatoon waxtaanee ko su ko defee suñu waxtaanee ba noppi nag daañu ubbi antenne bi lu ci waay am ci lu mu laaj ci Covid bi wala leneen benn beneen jàngoor bu ko yitteel mu laaj ñu ko. su dee ne c'est personnel mën nañu jël ci souf su ko ñu daal koy euh, su ko euh, mbokk yi euh, comme ñu leen ko annoncé rek donc tay ji ci mbirum Covid bi lañ bëgg ñëw def waxtaan su ngeen xolé audio bi bi ma présenter, euh ma ngi ci présenter wu wax ne ma li waral lool rek dafa am mbokk bu Ah, comme audio yi li ci ëpp duñ koy transférer ci ñeneen te it ah, nit ñu bëri léeg-léeg ah, mun nañoo yittewoo li ñuy def suma ci mënoon di fàttali sama adresse ak sama contact pour ku ma soxla looloo waral loolu ba tax na tey ji liñ bëgg waxtaanee muy covid bi su ko defee liñ ci jublu rek mooy nit ñi xam fi ñuy teg seen tànk moytu ndax defe naa comme ni ko olof njaay di waxee fagaru moo gën faju alors euh, mbirum Covid bi nag dafa nekk mbir bu doy boo xamante ni jàngooro la euh, bu doy boo xamante ni euh, askan wi suñ ci yeewoo bàyyi maanaam xel ci li nga xamante ni waa Kër Docteur ñu ngi koy digle ku ci nekk nag jël sa responsabilité ku ci nekk jël sa engagement xam ne yëf yi du yëfu kenn du nguur moo ko mu fi mën a jëlee du kenn waaye kenn ku ci nekk ne jàpp ne yow yaa ko fi war a jëlee. su ko defee ñun ñëpp ñu daal di soobandoo ci xex bi euh, balaa ñuy gën a xuus lan euh, euh Covid 19. en fait euh, coronavirus ñëpp xamné virus du tëb tëb rek juddo virus ci microbe lay joggé té microbe aussi du tëb tëb rek juddo microbe ci bactérie lay lay joggé motax euh ku xam deug manam microbe ndaw gi mu ndaw euh dina xamné microbe kenn mënu ko gis ci bëtt ñaari possibilité kese lañ mën a def pour gis ko soit euh, mën nañ koo gis ci li nga xamante moom mooy microscope optique mooy boobu ñuy téye euh, ci loxo di xool ngir mu yokku taay bi wala microscope électronique mooy yooyu nga xamante duñ koy takk ci bët yi comme lunette mu ngir mën a xool taayu taayu micro bi ba tax na li nga xamante ni moom mooy euh, virus bi di Covid 19 na nit ñi xam ne.

n'est-ce pas yegg ci respiration bi n'est-ce pas euh, il faut que mu am fu muy jaar fu muy jaar nag mooy bënn bënn wala boog bën bën di nekk ji kanamu nit ki moo xam ci bët moo xam ci nopp moo xam ci bakken mbaa ci gémmiñ day loolu moo waral ñuy tere nit ki di jël loxoom souvent di ko faral di euh, dugal ci bëtam wala gémmiñam wala demee ni ko noonu sans pour autant mu raxasu ak euh, loxoom ak li nga xamante ni moom euh, savon di utiliser souvent le gel hydroalcoolique ou bien la solution hydroalcoolique euh, wante it di faral di moytu nuyoo yi di moytu di tak masque di moytu itam daje dajaloo yi loolu lépp bu ci nekk rek dinaa ci ñëw ngir leeral lan tax Docteur diko ko digle. alors li nga xamante ni moom mooy euh, moom Covid bi li tax waa Docteur.

Euh, ndox bi ak savon bi aussitôt lepp lo xamanteni ni la mu mun daldi daal di mu mu mun dañ beneen bi moy gel hydroalcoolique bi na ñepp xamné euh nit ki leg leg mën na am microbe ci loxom te du ci xam dara su ko defee gel yi wala solution bi da fay permettre en fait mu mun fixer micro yi ba daanaka du mën propager manam du mën déplacer wu di euh, dem feneen ba indi yenn yenn lorange yi li nga xamanteni ni moy masque yi digle Euh, yow mën nga am virus bi te doo ko xam wala nit ki nga jàkkaarloo am ko te du ko xam ak bu mu ci mënti doon yow su dee ne danga nga ko am te euh, xamoo ko maanaam soo takkee masque yaa ngi aar sa bopp ba nit kee du la mën a lor léegi nag su ne da ko am ba noppi te xam te xamoo ko maanaam soo isolé mbaa soo waxee salive yooyu ci yi génn ci sa gémmiñ ci yow rek lay yem su ko defee au moins maanaam mbir bi du mën a yaatu du mën a euh, maanaam euh, contamination du mën a law beneen bi mooy dajalo dajaloo yi ñuy dajaloo virus bi ci mbooloo la gën a ay fu ñuy dajaloo euh, donc yàlla nag bu mu nekk dajaloo yoo xamante du ñu nekk ci espace yoo xamante ni c'est fermé hermétiquement ak yu demee niki noonu virus bi ci foofa la gën a ay looloo tax ñuy ñuy tere ñuy tere dajaloo yi

Euh, lii ma tudd yëpp waa kër docteur ñu ngi ciy insister ñu ciy ñaan ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp waaye nag dama ci bëggoon yokkaat loo xamante ni euh, dama ci man taxaw bu baax a baax ndax yii ma tudd yëpp su ngeen xoolee c'est externe en nous maanaam bokkul ci nit lu ñuy jële fee di ko indi ci ñun moo Maski, masque yi moo xam savon yi moo xam gel yi moo xam déplacement yooyu yëpp ci ñun maanaam ci suñu yaram lan nekk ci suñu yaram te mën ñoo ci loolu laa bëgg a taxaw tuuti nag ak yéen insisté ci muy le système immunitaire. Euh, loolu ñuy tuddee système immunitaire suñ ko comprendre. mooy rôle bi police ak gendarmerie di jouer ci réew xam ngeen ne police ak gendarmerie lu am solo ci réew mu ta ñàkk ci réew alors noonu nag nga xamante ni police ak gendarmerie noonu la ñuy aaree ba benn saay-saay du jóge ci àll ba ñëw di attaquer réew moomu noonu la ñu yàlla defalee ci ñun ñu am police ak gendarmerie yoo xamante ni ñoo ñuy aar ci bépp feebar boo xamante ni jóge na fee bëgg ñoo loolu moom la tuddee système immunitaire léegi nag nit ki su dee ne dafa am un bon système immunitaire euh, na xam ne du ma ne du feebar de ndax yàlla mooy tege natt mooy tege feebar waaye feebar du ko tëral pourquoi parce que day fekk mu am kàttan bi bi war ci moom ba bépp feebar bu ñëw soldat yi nekk ci euh, ñun euh, maanaam muy les globules rouges et blancs mën a jug nag attaqué wala bokk aar ki nga xamante ni Euh, moom mooy euh, nit ki nga xamante ni moom moo moom la feebar bi moom la feebar bi dal ba ci coronavirus bi la preuve ci panel laay waxee te sama wax ji ragalu moom mu dem fépp ci àdduna bi ndax xam nañ li ñuy wax euh, xam nañ fi ñu ko tegit maanaam bi corona bi amee ba léegi man de déggaguma mbër bu amee corona déggaguma it soldaar bu amee corona wala même suñ ko amee déggaguma ci benn loraange ci ñooñu dégguma sportif de haut niveau bu amee corona c'est vrai que Sadio Mané fan yële wala boog weer yële déggoon nañ ne amoon na mais quelque temps rek dafa tane lan moo waral mais en réalité ñi tout tudd ñëpp su en colère. ils ont un bon système immunitaire maanaam dañoo am système immunitaire bu dëgër loolu li koy wane mooy euh, ñoom li ñuy tere rek lañ la la ñuy def wala boog bokk na ci lenn li ñuy tere te ñu te muy muy. ci mbooloo la ñuy yëngu ñii ma tudd ci mbooloo moo xam mbër bi moo xam soldat si moo xam euh, n'est-ce ñi nga xamante moom mooy les sportifs de haut niveau alors euh, lan moo tax nag virus bi du ma ne du leen dal waaye euh, maanaam bëriwul mu leen ni lor ci ñoom bëriwul sax lañu koy dégg ci ñi ma tudd mais c'est parce que tout simplement ñii du ñoo am système immunitaire bu dëgër ndax activité sportive yi ñu def ndax hygiène de vie bi ñu am macha allah euh, ndax seen système immunitaire euh, dëgg gim dëgg taxaw temm ngir mën a xeex bépp feebar bu leen bu leen mën a sonal euh, pour ñëwaat ci système immunitaire toujours lan moo tax ñuy wax ne mag ñi la gën a sonal ak ndaw ñi c'est parce que en réalité ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy mag ñi seen système immunitaire dafay faible dafay fragile alors que ndaw ñi seen système immunitaire dëgëragul dëgër bi leen mën a permettre ñu mën a xeex ak jàngoro yi leen dal lii rek tax ñu ne ndaw ñi ak mag ñi ñoom lay ñoom lay gën a sonal waaw léegi est-ce que mënuñoo pour def la prévention insister ci li nga xamante ni moom mooy tax ba nit ki am un bon système immunitaire na ngeen dalal seen xel ndax loolu am nañ ci euh, solution am nañ ci pexe bu wér euh, ci képp koo xamante ni yitteel na la xool naka la ñuy fexe ba dimbali la ngir nga mën a renforcer sa système immunitaire léegi nag mbokk yi fi may jeexalee émission bi mooy di ñaax sama bopp di ñax euh, mbokk yi ku ci nekk jël say responsabilité te xam ne xeex bi toll nañ foo xamante ni docteur yi ci seen bopp li may wax nag lu leer laa ci am médecin yi ci seen bopp jamono ji may wax ak yéen euh, yëf yi mu ngi leen bëgg a ëppi loxo hôpital yi fess nañ am na médecin yoo xam ne sax seeni waajur wala boog ñu leen jege mënatuñu leen recevoir hôpital ci kër ga lañ leen di defaree ay soins kon loolu li muy tekk rek mooy que ne place amatul su dee place amatul nag li ñu war mooy ñu góorgóorlu ñun suñu bopp respecter digle yi waa kër docteur digle mais surtout itam ñu renforcer suñu système immunitaire. ba noppi nag am fulla ak fayda ak responsabilité bu mat sëkk taxaw temb ngir mën a xeex jàngoro ji ci naka xam nga euh, jamono ji ñu toll moom ku mën a bañ a déplacé wu moom moo gën waaye nag léeg-léeg nga am mbokk boo xamante ni dafa ñëw seet la doo xam noo koy def ku ci nekk na am fulla ak fayda euh, fexe ba teg ci buntu këram ndox bu am eau de javel savon et tout mouchoir gel hydroalcoolique ou solution hydroalcoolique euh, li tax ma wax loolu mooy que ne léeg-léeg euh, mbokk dina ñëw seet si la ñëw rek dugg ci saal bi moom mi lay ñëw seet si xamoo ndax am na jàngoro bi wala déet moom miy ñëw tamit di seet si mu fekk ci xamul nak kenn ci wa kër gi amé nako wala déet motax tax yëf yi jarul tit jarul euh affolé parce que ku tit ku amul sang-froid ci mbir su yàggee maanaam dafay daal di euh, afale te nit ki su afalee soo moytuwul mën na def sax musiba jëye bu mu mënti am ki ci gën a tey ki ci gën a dal ki ci gën a ànd ak euh, sang-froid kooku mooy daal di mën a dimbali ñeneen ñi kon jamono ji fi mu toll jarul nit ñi di tiit waaye nañu xam seen responsabilité nañu xam lañu ñu war a def nañu xam la ñu war a moytu ba noppi nag taxaw ci tàmb su ko defee gan gu ñëw nga waxtaan ak moom ci kaw dal yar ak ci tomb oyof mu raxasu euh, nga jox ko mouchoir mu jël gel doog a doog a dugg def naa suñ defee noonu rek yàlla mën nañu dimbali euh, euh, ku ci nekk tamit say ñoñ sa njaboot sa ñi lay déglu parce que am na ñoo xamante ni ay leader lañ am na ñoo xamante ni ay kilifa lañ am na ñoo xamante ni ci la ñu nekk nit ñi ñu ngi leen ciy dégg donte ñaari nit ñetti nit lañ ñooñu ñu fexe quand Euh, ba euh, di soññ seeni i ñoñ mais soññe bi tamit yow mi soññe na nga ciy jiitu mënoon nit ki dee leen takk masque te yow te yow te yow te yow kenn du la gis nga takk masque kon nag loolu rek laa bëggoon daanale leen wax ne ubbe nañ antenne bi lépp lu ci waaye bëgg a laaj ci euh, thème bi ñu ngi koy déglu ku amit leneen lu mu bëgg a laaj ci mbirum santé de façon générale itam ñu ngi koy déglu et koo xamante ni li muy laaj c'est trop personnel mën nañ jël ci suuf ndax secr médical moo ñuy tënk ba yenn yu bëri duñ ko mën a wax ci mbooloo waaye nag euh, daañu fexe ba euh, li secret kii di jàngo ni kii ñu teel ko ko incha allah rabbi euh, maa ngi leen di déglu jërë ngeen jëf ubbi naa antenne bi. waaw jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sama nuyoo nga joxal ma ko waa Allemagne ak waa diaspora bi yëpp di kontaan lool ci sa intervention ndax tamit émission lii lay jëriñ.

am nga jàngoro boo xamante ni bëggoo kenn xam ko loolu laa wax ne su dee ne nit ki da ko dal mu bëgg am lum ciy laaj lum ko lu mu bëgg a leeral mën nañoo jël ci suuf te loolu je pense que ne ñëpp war nañ cee mën a ànd euh, su ma jëlee exemple jigéen joo xamante ni par exemple day gis mbaax biiram di metti wala euh, suy euh, jëflanteeg borom këram léeg-léeg maanaam muy metti lool ci moom

ci mbirum euh, euh, sa position bi nga am euh, je pense que ne position bii nga am wala boog taxawaay bii nga am nit ñu bëri taxawaay bi am nañ ko loolu moom lu lu lu am la e man nag li ma ci wax mooy que ne ku ci nekk dama koy damay respecté gis-gisam waaye li nga xamante ni bëggoon naa ko indi mooy maanaam état bi war na gën a mën a communiqué ak nit ki parce que itam réero amul ñàkk waxtaan a am te it nit ki su dee ne xamul rek mën na jàpp yenn yi wala mën na yaakaar yenn yi ba suñu communiquer ni mu waree euh, réeroo mën na bañ am et surtout nit ki mën na xam ne ah nekkte kat lii ñuy wax nii nii ak nii ak nii la demee nii ak léegi li moo tax ma joxe benn exemple bu ndaw euh, bi nga xamante ni en fait vaccin yi waxoon nañ ne lay ñëw euh, AstraZeneca alors biñ koy njëkk a wax. nit ñi di coow ak yooyu man ci laa waxee ne kilifa yi nga xamante ñoom ñoo jiite réew mi ak ñi nekk ci bopp ministère de la santé ak waa ko docteur ak gouverneur yeeg préfet ñooñu ñoo war a jiitu ci ñàkk bi su ko defee population nañ xam ne ah li ñuy ruuma daal kon amul benn danger bu ci nekk alors il y a dogal nak je pense deux jours ministère de la santé dafa sama euh, donc vacciné après le président de la république etc. donc juste pour wax la communication dafa am solo parce que ci walu ñak yi nit ñi yi yi ñuy def du lay vaccin contre le paludisme am na fi na fi vaccin contre euh, poliomyélite à na fi vaccin contre la rougeole amoon na fi euh, ainsi de suite etc., etc. donc juste rek pour nit ñi xamné vaccin du lu fi bess légui nak su dee ne communiqué wuñu dafay dafay dafay nekk lu waay maintenant am na foo ne d'accord na fi ak yow moy lan moy que né santé mom bu len ci kenn ndax dafa am business bu ci nek lool mom nako ñëpp xam pourquoi moo parce que amna tay tey ñoo xamante suñu sañon Covid bi du mës jeex parce que am na ñu ciy dund loolu loolu loolu moom na ko na ko ñëpp xam beneen bi si mooy industrie pharmaceutique industrie pharmaceutique li nga xamante ni moom mooy objectif am mooy nit ñi di feebar ngir mën a dem hôpital di di mën a ñëw ci pharmacie di jënd di jënd garab et léeg-léeg sax di ngeen dem hôpital ñu bindal leen benn médicament ngeen utiliser ko seen jàngoro tane quelque temps après jàngoro bobu meuna ñëwaat ça signifie que amna na yenn traitement yo xamante en fait euh, euh, c'est juste un calmant

ben dëkkandoo wala ben xaytu médecin wala demé ni ki noonu suñu amé temps nañ doxantu dem hôpital surtout à l'urgence hmm? def une petite enquête parce que tam yëf yi gëstu da cee baax gëstu du rek journaliste wala agent de santé mo wara a mais juste rek pour nga gën a xam ah yëf yi kat amna comprendre nga donc loolu rek mom la lay loolu mom la lay mom la lay denk xam nga suñu démé ba euh khalifa généraux yi euh di bay li euh, di bay xel ci wa kër docteur di digle euh, ñi nga ñoy euh, euh kilifa yu bari di bay xel ci li waa kër docteur di digle donc dafay jaaru kanam ñu xam ne mbas bi mu ngi fi et lépp lu ñu war a def nag mooy euh, fexe ba aar suñu bopp léegi nag problème mooy que ne nit ki tant que dalul ku la jege euh, mën nga ko bañ a gëm du dëgg maa ngi lay ñaanal yow yàlla na ci yàlla aar ak ci sa njaboot ak ci sa mbokk ak képp koo xam ak képp koo xamante yaa ngi jëflante ak moom euh, waaye daal yëf yi noonu la demee loolu laa ci bëggoon sànni jërëjëf. mu mel ni kon ñu ngi jaajëfal. ñi jot signalé wu ñëpp muy soxna soxna ñu koy baax di docteur Abou Hafsa di sant ki nga voilà donc je pense que ñoom la ñoom ñoo jotagum intervenir di sant Cheikh ci intervention bu am solo bi jërë ngeen jëf. waaw euh, Cheikh rek. Euh, defe naa ne yàlla mën na koo dimbali ndax xam nga li ñuy tuddee esprit critique dafa am solo gis nga mbir mbir waroo tëb tëb rek soobu ci waroo tëb tëb rek tamit lu ñu la jox rek nga nangu du dëgg euh, même ku deful santé euh, ñëpp la yàlla jox xel te xel lu jëriñ lenn lu dul xalaat du dëgg te lu yanu maanaa ak lu yanuwul maanaa ku ko dégg nag wax dëgg yàlla war ko mën a settantal man damay faral bokk na ci li may xeex Euh, wala boog li ma contre nit ki dem hôpital ñu ne la bala ñuy laaj laal sa malade il faut nga joxe temps te temps boobu ndeysaan leg leg xeyna nit ki doole jotul ginnaawam euh, loolu waral man képp ko xamanteni ni maa ngi jëflante ak yow di la traité damay faral di wax dafa bokk samay discours su dee ne un million moo la war a traité soo amee mille francs ñaar téeméer mun nañ ci commencé te loolu tam du du ay du ay slogan wala kii lu ma gëm la lu may dund la léeg-léeg sax. dinaa jëflanteeg nit euh, daanaka te te te daanaka du ma duma ma jox dara ndax xaalis amul solo waaye benn nit bi nga xamante ni jëflante ak moom moo am résultat ci kooku moo la indi junniy nit euh, waxuma la dara sax ci parce que tamit nit mënut a fay nit euh, waaye yàlla maanaam dafa fonk jaamam yi dafa fonk njabootam yi te ki ko gënal ci nit ñi mooy ki ko ëpp yërmande ci njabootam gi ba tax na Euh, léeg-léeg maanaam mën nga jëf jëflanteeg nit sax xoolam sedd gi muy sedd wala nit ki am na métti nga fexe ba soulager ko kooku su la ñaanal rek suñu boroom mën na la dimbale àddina ak alaaxira te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne euh, métier bi gën ci métier yi bi gën ci métier yi mooy jàngale alquranul karim ginnaaw boobu yonent bi teg ci wàllum faj mbirum santé euh, ginnaaw loolu maanaam soldaar. loolu xam naa ne yéen ñi oustaz yéen a ma ci gën a sax euh, gën a am ay leeral ndax ci ay gëstu ñu gëstu ci lañ ko xamee euh, beneen bi tamit mooy euh, ci wàllu comme corona bi la ñuy waxtaan dama lay nettali sañu benn xisa gu ndaw rek te loolu tamit ci samay gëstu ci benn kilifa laa ko déggee mu wax ne yonent yàlla moom saa meloon na suñu borom noo xamante daanaka dafa dem bay bëgg di waxtaan ak moom di ko dégg lépp benn jamono mu xawoon tawat ñaan yàlla ne ko yàlla man di dama tawat dama bëgg euh, nga faj ma yàlla nangul ko ñaan googu mu wér mu tawataat ñëwaat ci yàlla ñaanaat ko yàlla ne ko demal fa nga taxawoon am na garab gu fa nekk nga dagg koo jëfandikoo ko nii soo ko jëfandikoo di nga mu saa def loolu ko yàlla wax mu daal di am tan daal di wér beneen bi mooy euh, bi nga xamante nii maanaam bi mu tawataat tawatee bi mu amaat beneen tawat ñëwaat ñaanal suñu borom yàlla ne ko demal jëlaat ci garab googu ma la joxoon soo ko jëfandikoo di nga wér Moussa jëlaat garab googu jëfandikoo ko wérul te garab googu moom la ko yàlla njëkkoon digal mu jëfandikoo ko wér bii mu jëfandikoo ko wérul mu demaat ci yàlla ne ko yàlla man dina maa jommi garab gi moo joxoon de wax dëgg yàlla jël naa ko waaye ma ci benn tan yàlla ne ko yaa Moussa ndax fi nga dëkk am na koy faj am na docteur mu ne ko waaw mu ne ko demal nga seeti ko Moussa dem bi mu demee ci docteur boobu docteur bindal ko garab nekkate garab gi mu ko bindal mooy garab googu suñu suñ borom digaloon mu ñëw jënd garab googu garab gi euh, faj ko mu daal di wér yàlla foofu li mu koy xamal rek mooy ñun yàlla ñun ñooy faj du dëgg euh, waaye nag lépp ci sabablu kon nag euh, yaa oustaz Cheikh Mbacke xam naa li ma yëpp yaa ma ko gën a xam yow ak kilifa yu baax yu fi nekk ak soxna yu baax yi euh, waaye dama doon laajante bi ngir xamala ne la euh, maanaam lu mu ci mënti doon suñ la waxee rek fexeel yow ba jël say mesures du dëgg gëm nga ko gëmoo ko loolu ku ci nekk am na ci am na ci droit du dëgg waaye nag fexeel yow ba jël say mesures du dëgg yal na ci yàlla aar aar ci mbokk yëpp macha allah.